waaw asalaamaaleykum mbooloo mi xam naa <laughs> buri bi bari na mais mbooloo mi moo xaw a bari lool lool lool lool lool lool lool ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci trop ak santam tey ci initiative bu rëy bii nga xamante ni euh, man Moussa le maire la commune de Cherif Lo Ousmane Sarr euh, def ko ci ndigalu président clinique ndey bi mais nag ñun bala ñuy def dara dañuy yow di tàggu suñu kilifa kan mooy suñu kilifa mooy xalifa généralu xaadiriya seexal bekkaay bekkaay ah mu yabal nag porte parole di Serigne Pape mat li mu doon sëkk macha allah parce que bi nuy ñëw fekk nañ mu génn dëkk bi population bépp génn mu muy nii tey yor ratom ak baleem di bale su sous-préfet moom sept heures fekk na ko fi parce que lu ñu wax rek Njaasaan moom da ci sawar waaye dama wax ni 53 villages yëpp. yëpp yëpp tey ñëw nañ ci Ndiassane kenn desul gis ngeen camions yi dafa fees dell am na sax ñoo xamante ne nii euh, dañ koy yëg taal seen i camions ñëw bokkut ak malgré ak machine yi mais noonu taal seen i ñëw dikk bokk ci liggéey bi xam ni dëkk bi euh, dëkku wàlliyu la dëkku sëriñ la dëkk bu bëgg set la moo tax ñëpp population bi kenn mën leen a fay kenn desul góor jigéen mag ndaw ñëpp génn nañu tey Ndiassane foo sànni mbàtt mu takk vraiment dañuy wax ni. fi ñu jaaragul bari na mel ni gis Ndiassane sincèrement gisaguñ ko fenn loolu na li ko waral mooy porte parole bi parce que porte parole bu matee porte parole ah, liggéey bi dafay aw ci aw yoon. parce que waxuma la dara malgré mais gàmm ba léegi dëkk bi dafa fee dell ak mbalit oto yaa ngi tonni mais mën ni ci woon dara mais tey boo ñëwee fi pour nga for fi bant boo sikirooto rek jafe na beneen bi mbaar yi fi nekkoon ak mbaar mbaaraan yi lépp sous dajji na ko dindi na ko ba nga xam ne dëkk bi tey jii ku fi dugg vraiment sa xol dina sedd mais nag euh, moment yi itam dañ leen sant ak ASG yi benn ASG desul bàjjenu gox yi kenn desul moment modeste bi nga xamante ni jeunes yi ñoo ko formé pour doxal communauté bi loolu nekk cama ginnaaw moment boobu depuis démb la ñëw fanaan si di def liggéey bu rëy rëy rëy xamul liggéey bi nu mu toll waaye nag gàcce gaal la wax lu kunta tey képp ku sant kunta rek. wane nga exemple boo xamante ni yaa ngi yor bale te bu leen neexoon ñu dem dox ci kër yi loolu nu yónni ñu def ko waaye tey ñoom ñoo jiite mbir mi yor ay bale ñoom Yaxya ñoom ñëpp a ngi taxaw Abdou Khadir Kunta ñoom ñëpp kenn desul vraiment ni ko sëriñ boo xamoon daal defe nañ ko fi moo tax ñu bëgg euh, toog ba nga xamante nii tey ba jant bi soo bëgguñu dëkk bi benn benn benn benn mbale mbale nag puus dafa yomb li ma gis man gaa ñu di ko def clinique day buñ di ko yor ay bale dajaloo bale jal dem ñun nag euh, communauté rurale ñu liy baaxoo dañuy jël ay camion jël ay chargeur lu ñu bale ñu okkee ko toll ni ko yóbbu ko ci camp yi nga ne mbale bi du fi ne bi ñuy lancé rek mooy paysan vraiment mu jàppale ñu parce que commune amul dooleek amul ay oto saa bu nuy bale dañuy luye ay camion luye ay chargeur jaaru na commune bu toll ni commune Serigne Lo dëkk bu toll ni dëkku Cheikh Bou war naa mën a am ay poubelle yoo xam ne mbalit mi buñ dikkee di ko ci def mais jël mbalit jal ko ci buntu kër dafay naaw amuñu fuñ ko def mënuñu koo yanu amuñu fenn fuñ ko tuur kon président ñi ngi lancer message mu jàppale ñu wutal ñu ay poubelle yoo xam ne jigéen ñi buñ balee di ci def am camion yoo xam ne camion day nekk ci commune bi ñu koy tonni

dañoo manqué ndox piste yi amuñu ko bu du woon Ndiassane sax ñoo ñu jàppale parce que Ndiassane ñoo ñu jàppale ci ndox bu gàmmu ñëwee ñu seet dëkk yoo xam dañu ni lii sonn nañu ñu coppati ci côté Ndiassane moo tax président li muy def ci gàmm yi li muy bëgg nañ mu yokk ko parce que Ndiassane ñoo yëmal mu ko Ndiassane rek Ndiassane da koy décentraliser mais jox ci yeneen dëkk yi kon Ndiassane bu ñu yokkalee Ndiassane bu yàggee commune bi dina baax mais président war nañ boog bu doon benn forage communautaire lu am ko temps yi ñu ngi jànkonte loo xamante nii euh, ndox dañuy jënd ay camion di ko yóbbu ci àll bi barki dem daan na Serif Moulay Serif Penku Kër Maguèye dëkk yëpp amuñu ndox fi ne ay camion la ñuy jënd di ko yóbbu jaaru na nag commune Serif Lo war a mën am ñaari forage ndaw ñi liggéey ci ñëpp xaj ñu ci bureau yi mais kër goo dem ñii jàng nañ ba am doctorat ñii def ay bac ñëpp a ngi taxaw mais président ñi ngi koy ñi ngi lancé message mu dimbali ci ñaari forage ndaw ñi mën ci liggéey vraiment yoon nag moom piste moom amuñu ko li fi amakus néew doon jóg suñu entreprise bu néew doole fii di ko ci def mais benn pist boo xam ne ci communauté rurale 1961 ba nëgë ni am na fi benn mètre piste bu fi état def mosul am kon ñu ngi xam na ni paysan Macky Sall lu yëg faj ko mais entourage bi dañuy def blocage da ngay bëgg gis président doo ko mën a gis pour mën a wax say doléance kon fii lan mën a jàllale suñuy doléance ñu jàppale ñu ci communauté rurale ñun ñun li tax ñu ñëw fi askan wi moo ñu tax a ñëw kon président nañu jàppale ñu mën a dimbali askan bu baax a baax a baax a baax Këling bii mu def nag lii moom fekkoon na moom Ndiassane moom nekk ci ak commune Serigne Lo kon dafa ñëw yokk ko vraiment muy lu baax te lu baax dañ ko lii dañ ko def defuñu ko ngir politique dañ koo def ku ne xam ne set mooy premier médicament bi gën a wér nit boo setul feebar daf lay yomb mais tey lii Ndiassane def ñëpp war nañ ci roy 53 villages yëpp. war nañ roy Ndiassane dëkk bu nu wootee di population bi génne waa Ndiassane génne kon daal kontaan nañu sant nañ population bi sant nañ ñëpp waxuma dara mais bi ñu ñëwee xalima bi dafa génn ceeb bu bëree bëree bëree bëree bëree bëri kenn xamul ceeb bi nu mu toll ni ma maire li yow la ko jàppalee tey jii ku fi toog doo leen fenn yi nag yi doy na ceeb yi doy na kon wax dëgg yàlla porte parole boo demee ci xalifa bi nee ko monsieur le maire nee na kontaan na parce que lii ñun defal mosu ñun koo defal fenn c'est la première fois ñu defal ñu ko fii ci Ndiassane ku la defal lu baax ne da war a taw wax ko ba ñëpp dégg ko kon daal ñu ngi sant sëriñ bi di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam lool lool lool ba am téeméeri at juróom fukk sant ordonnance sant nañu gërëm nañu préfet bii nga xamante ni bi mu ñëwee léegi vraiment commune bi moom waaxootul day daw kon seen ñëpp sant nañ leen jigéen ñi ñëpp sant nañ leen daal dafa sama xol dafa sedd sant nag presse bi parce que xam nga li yombul tey te tey ñu ngi def CRD gouverneur woote na ko ca kees pour président Macky Sall war faa ñëw samedi waaye xam ñoom ni ñu toll man bi ma leen wooyee organes yi télé yi ne ci Sénégal porte parole ne ci amul benn bu ñëwul yi ñëwagul ko néew ñi dañ leen ko paas télé boo taal Sénégal di nga ko gis rajo boo taal Sénégal dinga ko gis presse presse écrit boo dem di nga ko ca fekk incha allahu rabbi kon je vous remercie. waaleykum barakaatu euh, bokki Sénégal gépp ñu ngi leen di nuyu ci turu bi ak njabootu kuntu yëpp ak ñaaju ci moom. di njëkk rek di gërëm monsieur le maire Ousmane Sarr ci taxawaay bu kaw bi mu taxaw ànd ko aussi ak suñu su sous-préfet di njóogu Ndiogou tàngamluwul dara ci dëkk bi lépp loo xam ne dafay jëmale dëkk bi kanam wala xalif bi bëgg ko mbaa jaboot bi kenn du ko ci jiitu ñu ngi sant aussi population Ndiassana mhm. sant leen bu baax a baax a baax a baax góor jigéen mag ak ndaw mais di sant aussi ñi nga xam ne ñoo jóge commune Chérif Lo te ànd ak monsieur Ousmane Sarr lii nag dafa kawe ci dëkk bi kawe ci réew mi maa ngi koy wax démb rek yàlla li mu jëkk a wax nit ki te mu war a nekk koo xam ne dafa war a mën a war a mën a déggoo ak yàlla daf ko ni bala ngaa déyoog man na nga set inna allaha yuhibbul mutahharin yàlla dafa bëgg set bëgg lu set ku setul amuloo ci yàlla cër kon lu jiitu ñu duñu jàngal naka la ñuy raxas ay loxo lislaam jàngaloon nañ ko te itam borom xam-xam yi d'accord nañ ni ki saxoo njàpp ci juróomi waxtu yi feebar bi du ko mës dal ndax virus bu duggee ci bakkan bi ndox mi fekk ko fa day dem ci biir bi ku ne xam na ni biir la muy génne acide la daf koy rey loolu moo tax njàpp am solo donc l'islam set la digle lii nag nga xam ni tey def nañ ko dégg nga te jàngoro jooju tey lëmbee adduna bi yëpp ñu ngi dellu siwaat xel yi il faut ñu dalal xel yi te delluwaat nag ci yàlla sëriñ bi wax na ko démb nee na ngi santaane ginnaaw bi mu ko santee boppam ak njabootam réew mi yëpp ñu jàng alquran ñaan yàlla ñu nekk ci jàngu bi am na nu ñuy ñaane suñu borom na ñu ñaan yàlla ñoom itam. Mm-hmm. lépp yàlla dégg na ko su ko defee nit ñi seen xel dal xam ne lu yàlla tuddul du am lu yàlla tuddul du am te ñu bàyyi xel aussi ci ni ma ko waxee woon démb ndigal yi nga xam ne dafay bàyyi ko ci ñi nga xam ne yor paj gi di ministère de la santé ak action sociale li ñu wax ni loolu moo gën ci nit ñi pour ñu def ko mais nañ leen ci fekk. loolu ñu ngi ci ànd ak ñoom incha allahu taala waxtu woo xamee ne ndigal jóg na itam ci boobu wàll sëriñ bi ak njaboot gi yëpp ànd nañ ci ak ñoom donc ñu ngi sant dégg nga encore njiitu réew mi ci li nga xam ne saxal na ko ci samedi bu nekk ci weer pour ñu setal dëkk yi setal gox-goxaan yi pour jàmm mën a am waaye wér gi mën a dellu si Sénégal mën a jël image bi nga xam ni képp koo xam ni dëkku fi bu duggee ci réew mi xam ne Sénégal nii la mel réewu teraanga la kon loolu ñu koy sant équipe dama wax ni lépp loo xam ne état gis na ko ni mooy yokk Sénégal yokk wér gi gunge askan wi dama wax ni bépp kilifa diine bu ñu ko wax d'accord na ci. rawatina na wa rahmatullah. alors euh, comme vous le savez le premier samedi de chaque mois est décrété journée clean day pour le chef de l'État euh, le samedi. et passé, c'était le 29 jusqu'à la fin du mois. Donc on a anticipé, nous, à, à à et pour prévenir un événement majeur que nous organisons dans cette ville le samedi même, le 7. Euh, le 7, nous avons une grande manifestation religieuse et par anticipation, nous avons euh, préféré hein, euh, organiser cette journée de Clean Day le mercredi. Et comme vous le savez, comme vous le constatez, nous avons constaté l'adhésion parfaite de la population, mais en premier lieu du calife par l'intermédiaire de son porte-parole qui a donné toutes les instructions nécessaires pour la mobilisation de toute la population. C'est ce qui a voulu que euh, les résultats que nous sommes en train d'observer, hein, que vous observez actuellement, et c'est au profit de la population. Donc nous remercions le Khalif, pour ce ndigal qu'il a donné et l'accompagnement du maire également pour avoir mis les moyens consistants à la disposition du comité d'organisation les camions, les bennes, euh, le matériel en de nettoiement, tout est disponible sur place, grâce au maire que nous félicitons au passage. Et sur euh, le plan de cette, euh, je dirais plus en pandémie, bon, la riposte, comme vous le savez, c'est comme l'avait dit le ministre de la Santé l'autre jour, c'est veiller sur la propreté. Sur la propreté et éviter le maximum possible les rassemblements. Les rassemblements, euh, source de, de, propagation de ce, de ce virus. Et il faut prendre notre courage à deux mains et tant que c'est possible, l'interdire. En tout cas, dans notre zone, nous allons nous en référer aux chefs religieux, parler avec eux de cette pandémie qui est en train de sévir, euh, qui bon, qui est entrée dans le Sénégal, avec nos deux cas qui sont déjà enregistrés et qui sont en train d'évoluer quand même. Mais prendre les devants et demander aux chefs religieux de différer certaines manifestations. Ça, nous allons mener cette campagne de sensibilisation à leur niveau et vraiment solliciter leur prière pour que cette pandémie vraiment prenne fin le plus rapidement possible. pour cette dëkk nous euh, dañ ko def samedi wu jiitu ci weer wi faire. tey mais nous avons anticiper le date nous xaar le samedi parce que dafa am xeexu alors ñu def ko comme nous avons constaté nous avons génn nañu. encombrement bi fi amoon ñu profité génn ci parce que dëkku diine la am na nu war a mel ci wàllu cet loolu ñu ci gërëm bu baax xalif bi Cheikh Bekkaay ay Bekkaay di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi wéeral ko mais ci taxawaayu porte parole am Pape Kounta ah, moom it vraiment mu joxe ci ndigal ba ñu gis mobilisation bi ñu gis nii ci ndigalam ñu ko ci gërëm bu baax moom ak képp koo xamante ni ak lu kunti nga bokk ci bi mais aussi vraiment ñu ko ci maire Ousmane Sarr vraiment tout ce qui est moyen li moyen dëgg dëgg euh, xër la parce que moo ne faut pas qu'on les moyens pour parce que ci lañ mën a profité désencombrement le ak yu mel parce que nous ngi euh, phase au niveau national au niveau mondial ci wàllum feebar bu bees bi nga xam ni ñu ngi koy dégg te yàlla def na mu dugg si si réew mi ndànk-ndànk e ñu ñaan yàlla fa mu jógee yàlla fa jeex yàlla ko yàlla saafara ah ñaari cas yi fi amagum Sénégal it yàlla na fa yem mais tamit nag ñu ñaan nit ñi di ñaan ndigal ci kilifa yi ñuy gën a wax nit ñi ci cet gi. cet geeg bon yenn rassemblement religieux yi e mën naa am peut-être duñ ko dogal ni dootu fi am waaye tamit su mënee néew mooy gën parce que. même ci lislaam d'accord na ni mu feebar amee nañ tere ndaje yi koroog porte-parole li mu ci wax ci journal bi am na benn journal mu ko wax. vraiment kàddu googu kàddu responsable la. ñu nit dañuy tënku rek ci li nga xamante ni moom la autorité centrale di wax lu ñu wax rek ñu it ñu wax loolu. mais tamit dañuy ñaan kilifa diine yi ndaje yi su fekkente ni war naa mën a ñàkk wala boog ñu mën koo différer ñu différer ko ba jàmm amaat parce que it di faj jàngoro ba am fa musiba loolu it jaru ko. kon ñu ngi leen di ñaan événement bi di ñëw ñu déglu kilifa yi rek lu ñu si wax alors ñu defee ko noonu may nag ñu ñaan nit ñi vraiment ci wàllu cet gi lii du ko dëdd loo xam ne dañ koy def benn yoon rek sànni mu naax saay action de tous les jours la bés bu ne nit ñi war nañ cee taxaw autorité yi comme ñi nga xamante ni ñoo bokk kër yi ñoo moom seen kër yi parce que kër gi bu setul mbedd mënul set affaire set affaire nit la affaire nit la kon il faut que cette euh, propriété euh, individuelle là ñu traduire ko en en une propriété collective kon ñu ngi leen di gërëm bu baax comme ni ko maire waxee aussi vraiment di leen sant ci seen travail de relais bi nga xam ne yéen a koy def au niveau de la région finalement maa ngi leen di miin kenn ku ne ah ci wàllu taxawaay loolu aussi dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy vulgariser euh, développement bi ci dans les zones ñu leen di gërëm bu baax